asalaamaaleykum euh, mbokk déglukatu réew mi FM dal leen na jàmm seen émission sans filtre di jotaayu ndaw ñu fii ci Rewmi FM lay am mercredi bu jot 15h jàpp 16h euh, euh, comme ni ñu koy defee saa su nekk weer bu jot dinañ fi dalal ñaari candidat yoo xam ne euh, dañu fas yéene présente présenté wu ci élection locale yii di ñëw tey ñu dalal Mamadou Sène mareyeur la de profession waaye itam président AIC Terema bu Bettenty président de la commission des relation extérieures ak partenariat de l'ADEB di association pour le développement de Bettenty euh, mu samp ndëndëm ak euh, ci élection yi foofule ca commune bu Toubacouta moom lañ fi euh, dalal tey donc balaa ñu koy jox kàddu gi ma bàyyi moo faal mu nuyoo yéen. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ñoo ñuy euh, déglu fii ci Rewmi FM di ñu suivre aussi suñu plateforme yi lu ci mel ne euh, suñu page YouTube euh, mi officiel suñu page Facebook Rewmi point com donc di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñoo taamu di ñu déglu aussi mais bokkal plateau bi donc di ndokkeel ñëpp ci gàmmu gi nga xamante ni si lañ jógee di ñaan lépp loo xamante ni ñaan nañ ko si rek suñu borom def ko yiw te sot ko ci biir Sénégal. Mm-hmm, merci a fës ci bés bi ñaari euh, sujet la bu njëkk bi dañuy wax ci euh, li nga xamante ni moom moo lëmbee jamono ji biir réew mi muy politiciens yi nga xamante ni euh, dañuy faral di def ay œuvre comme ni ñu koy waxee di jël li nga xamante ni moom mooy ay kaye yenn affaire di ko di ko may parce que temps yi chaque jour nga dégg ñu ne mi ngi may ay kit scolaire ay élèves mais ñu seetlu ne am na ñenn ñoo xamante ni jël ba jël seen image di ko def ci li xamante ni mm-hmm. moom mooy kaye yooyu ñu jox ay élèves donte ñoom njëkkewuñ ko fi parce que je pense que am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ko woon def mais je pense que ki nga xamante ni euh, politicien la bi nga xamante ni day day joxe euh, ay ay kaye wala lu ñu mel je pense que amul amul importance mu jël image am di ko def ci li nga xamante ni moom mooy kaye yooyu parce que amul ñàkkul loo xamante ne peut-être moom la ciy xaar peut-être élèves yi ñu xàmmee ko ne diw moom mooy kay mais amul importance parce que amul benn liaison ak éducation booy bi xale bi nga xamante ni moom la ñuy jox kay yooyu. Mm-hmm. mais je pense que Sénégal dañuy dañuy jël benn euh, débat boo xamante ni euh, daanaka amul sens ñu nekk di ko di ko jiital. Mm-hmm. parce que yàgg nañ fee def ay mbir yoo xamante ni euh, am na si kay yi lu ci mel ne jël ay mbër def ko ci ay kaye jël li nga xamante ni moom mooy ay ay ay artistes yoo xamante ni artistes internationaux ko c'est la même mbër boobu lan la mën a apporter élève boobu ci ci cadre jàng bi muy def artiste bi ñu jël def ko ci cahier bi ban importance la amal xale bi jàng bi mu am mm-hmm. donc dañuy dañuy dañuy jël li nga xamante ni peut-être yu njëkk amoon na temps yu njëkk di nga gis cahier Senghor euh, cahier cahier euh, Ngalandou Diouf wala cahier mu nekk yoo xamante ni dañ ko doon faral di gis mais léegi artiste ngay ay mike gis ci ay mbër wala boog ñu jël euh, yeneen biir di ko def ci cahier table ah, de multiplication la woon table de multiplication moo nekk ci gis too table boo xamante ni day am erreur ci biir mm-hmm. Mm-hmm. gis naa ko maintes fois xamante ne ay état multiplication xaw ma euh, ni koy waxee état mm-hmm. euh, a mën a nekk mais loolu mun mun tam am nañ li nga xamante ne moom moo amoon bu njëkk muy jël kay def ci euh, li moo doon am ci wàllu histoire lu ci mel ne ñaal gore léegi joxe da joxe ay date joxe ay ay ay information élèves yi mun di di si jàng en même temps mm-hmm. mais aussi ki nga xamante ni politicien la carrière euh, même bu fekkee dafa bëgg ñu xam ko ne moo def lii mais jarul muy jël li nga xamante euh, moom mooy euh, ay kaye yoo xamante mhm. moom mooy Malick wala maa ngi derrière ki nga xamante moom mooy Memba. Mhm. lu ci mënti am daal moom nañu xool li nga xamante moom mooy njàng bi parce que ñoom tôt dañuy dem te bu ñu demee je pense que ñeneen ñooy ñëw loolu ñu nekk nekk. merci Mofal ci actualité bés bi. waa ci euh, beneen euh, mm-hmm. sujet bi ñu ci en bref rek muy li nga xamante ni moom mooy euh, ci discours ki nga xamante ni mooy xalif général des Tidianes ba wax ci ndaw ñi encouragé leen seen engagement ci politique bi waaye tamit mu ñaaw leen loo xamante ni jamono ji Sénégal béy na parce que foo toll rek xale yaa ngi dégg ñu bi moom a rey bi moom a rey donc naar bi moom a rey cela bi moom mooy xale yi léegi dañoo concentré trop ci li nga xamante ni moom mooy jeu de hasard muy pari foot. pari foot jamono ji tous les jeunes du Sénégal dem ba ci ba ba sax paa yi ñëpp ay jëkkatu euh, euh, jeu de hasard la pour ne pas dire PMU. Mm-hmm. Euh, mais jeu hasard boo xamante ni xamuñu instant bi porté bi. Mm-hmm. parce que man ni Sénégal bëggee li nga xamante ni moom mooy jeu de hasard dem di miser si li xamante ni moom mooy jël sa jël sa xaalis ñu jox la xaalis su fay fay école. mais est lan moo tax jeunes yi tey di dem. ci ah, investir ci ay pari foot mais bëggul yomb. déedéet bu non bëgg lu yomb nga bëgg lu yomb la nga argent argent facile Sylvie beneen beneen débat la mais juste ndaxte sëriñ bi wax na ko nee na bu ñu amoon éducation bu baax bu jox bu normal bu jaar yoon tey jeunesse bi dañu dem ci mais éducation bu baax boobu dañ koy tàmbalee ci li nga xamante ni moom mooy li ñuy bind ci bind buntu bi ne mooy 18 ans bu ñu jaay temps yu njëkk boo ñëwee di jënd permis xale sax dañaa la kenn moo la yónni ba avant ñu la jaay mais léegi ñoom ñi xamante ñoo ne si cantine yi ñoom ñooy jaay xale ba am 12 ans ñooy jaay xale ba am 15 ans te seen papa yi sax ñoom ñoo laan jiwaaleel ma tatel match ñoom ñu ñoom ñoo di yoon ci boppam mu nekk ay ay millions la ñu koy ñaawlu baax a baax merci euh, Mamadou Sène euh, ñu bàyyi la nga nuyu mbokk auditeur Rewmi FM merci Sylvie euh, maa ngi nuyu mbokk internet yëpp mm-hmm. waa Bettenty di nuyu waa commune de Toubacouta di nuyu bu baax a baax a baax suñu diaspora bi. Mm-hmm. parce que dama leen di nuyu lu bëri ndax euh, xam nañ ne réew mi euh, fi mu toll nii diaspora bi économiquement am na partition bu mu ciy joué. Mm-hmm. may gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu ñi nga xam ne aussi depuis le début ñoom laa àndal ñu may soutenir ci fépp. may nuyu aussi les leaders politiques yi nga xam ne. Mhm. tey beneen vision la ñu amal Sénégal pour que réew mi mën a développer. Mhm. maa leen di sant di leen gërëm. merci sa avis rapidement ci ñaari ponk yi nga xam ne Mor Fall daf jot ko fee développer. Euh, politique bi ngeen jël léegi yow euh, politique nga yaa ci grand parti samp nga sa ndënd dinañ ci ñëwaat mais façon bi ngeen jël léegi ñu bëri jàpp ni générosité la mais ñi nga xam ne mën nañ lire ce qui est jàpp ni propagande politique la. effectivement euh, li Mor wax ci actualité bi tey vraiment ñun liñ ci xalaat mooy politiciens yi ñun dañu war a jéem a changer yenn jikko yi li tax ma wax ko parce que ñun bi ñuy ndaw dañ daan gis euh, ci kaye yi léeg-léeg ñu bind ci yoo xam ne nii dafa méngoog bàkku réew mi. Mm-hmm. wala ñu bind ci yoo xam ne nii comme ni mu ko waxee. Mhm. dafay jëm ci histoire maam yi nga xam ne ñoo fi jaar. Mhm. def ci loo xam ne nii macha allah te xale yi war nañ ko xam. Mhm. mais tey bu ñu demee ba ci politique bi ñuy constaté ne il y a des acteurs politiques yoo xam ne ni pour ñu mën a def action sax il faut politique bi jot. man la je ne d'accord. dafay mbir yoo xam ne ni du ma ne dama koy ne wala dama koy ñaawlu mais man bokkul ci li nga xam ne euh, ànd nag sama gis ndax boo nekkee ci réew wala nga nekk ci gox bugg a loo gox boobu surtout lu mel ni njàng xam nañ ne benn réew munut a dem benn gox munut a dem sans njàngam. Mhm. nga bëgg yow saa yoo soxla askan bi rek nga fa mën a def action kon déjà li ngay wane foofu du exemple bu baax. or que politicien da nga war a doon royukaay politicien danga war a wane loo xam ne ni ëllëg ñii nekk sa gannaaw wala ndaw yi nga xam ne ñoo topp say tànk bu ñu jàkkaarlook euh, euh, yeneen yeneen yeneen i ndaw. ñoom ñu jiite leen ñu mun a jël exemple ci yow pour wan leen loolu. Mm-hmm. waaye su ma sañoon vraiment euh, ñu xool li ñuy def par exemple su ma jëlee exemple ci man Mamadou Sène. Mm-hmm. tey su ma naree yëkkati dara di ko jox sama askan. waruma xaar ba ma soxla askan bi di ko def. Mm-hmm. dama ci war a nekk avant ma leen di soxla su boobaa daf may yombalal yoon bi. daf may yombalal yoon bi ndax. Euh, bëgg-bëgg askan bi wala soxla askan bi wala li nga xam ne moo jafe. askan bi boo ci taxaw. ëllëg yaakaar naa boo leen laajee dara war nañ la mën a wuyu sans problème. lii mooy li nga xam ne moom laa ci mën a wax. Euh, vraiment may euh, lancer appel pour que ndaw politique yi nga xam ne ñoo nekk ci arène politique bi. Mhm. ñu mën a jafee comme ñeneen ñi ñu koy jafee. Mhm. beneen ponk bi mooy sëriñ bi li mu wax éducation beeg pari foot bi. bon éducation beeg pari foot bi effectivement. Euh, moom nee ne euh, ñiy jouer pay foot bi bëgg l'argent facile wax na dëgg d'une part ndax euh, buñ naree gëmloo nit ñi ne mun nañ jaar à travers les réseaux sociaux seulement pour am xaalis fii kenn du fi liggéey yaakaar naa lu ñu war a kii parce que boo xoolee suñuy culture suñuy valeur suñu maam yi nuñ ñu yaree loolu mooy que ne boo demee par exemple à Bettenty ñun yi ñu nekkee au primaire vacance bu jotee sa papa da yi naan nga nga ànd ak mool yi nga dem pêche ji ci deux mois vacances yi ngay def wala trois mois bi nga fa mën a gagné loo xam ne nii après xaalis boobu da nga koy jël nga dem en Gambie parce que ñun euh, frontière lañ dëkk. nga dem en Gambie jënd say jean ak say pantalon yu rafet nga mun a jënd sa fourniture defal sa bopp sa transport say parents du ñu sonn ci yow ba Noël jot. Mhm. kon xam nga loolu xale yaa ngi dimbale seen i parents. Mhm. surtout ci réew bu ndool bu ñu nekk nii bu mel ni Sénégal tey donc dafay pratique yoo xam ne ni war nañ ko xoolaat rek kese. boo demee euh, ci kër yu bëri léeg-léeg da ngay xëy sa doom du xëy sax ñëw nuyu la bu xëyee moom mu ngi ci site euh, internet bi. Ah, ba midi 13h moins mu jóg sangu ndékki nga woo ko añ mu ne la suur naa <laughs> il faut ñu jéem a xool éducation bi nu muy demee. Mhm. ci loolu may euh, nuyu suñu kilifa diine yu fi nekk. ma leen di remercier bu ay événement jotee ñu ñuy andil ay sujet d' actualité di ñu ci yeete di ñu ci yar. vraiment dafay loo xam ne nii ñu ngi koy saluer bu baax a baax. merci beaucoup euh, Mamadou Sène euh, di fàttali yow Bettenty nga jóge donc damay def euh, une brève présentation de Bettenty pour ñi nga xam ne xamuñu ko Bettenty euh, mi ngi bokk ci commune bu Toubacouta euh, nekk environ trente kilomètres parc national bu delta delta du Saloum population bi en majorité ce sont des Euh, religion bi ñu pratiquer foofu le plus islam la activité yu ci mel ni pêche exploitation fruits de mer agriculture élevage écotourisme ak euh, apiculture euh, petit commerce ak euh, artisanat n'est-ce pas noonu la. effectivement noonu la. juumuma. juumuma macha voilà yow balaa ñuy dugg sax ci suñu thème bi yow mareyeur nga comment se porte l'activité foofu noonu. Ah, bon ah, activité bi mën nañ ne vraiment li fa xew tey. Hmm. yuuxoon nañ ko fu nekk te ñu koy joytu encore ndax boo xoolee. ku wax mareyeur di nga xalaat ay produits halieutiques mhm. te produit halieutique boobu commencé naa wàññeeku bu baax a baax mën naa ne géej gi ci état bi mu toll tey dafa yàqu parce que waxoon naa la ne ñun bu ñuy ndaw suñ daan jógee bu ñu amee vacances dañuy dem pêche mhm. nga am ba te tey géej gi toll na foo xam ne ni am am bi néew na de telle sorte que dafa am yeneen phénomène yu mu yëkkati ci zone boobu may phénomène de l'émigration clandestine. Mhm. bien vrai que bon brossé guñ ko ci sujet bi. Mhm. mais boo xoolee comme euh, ni ma ko waxee activités mhm. yi bon seen rentabilité bi ndaw na de telle sorte que doom yi mënuñu toog ci ndóol ba mu leen di jaral ñiy génn te boo xoolee bu njëkk da ngay gis benn ponkal bu juddoo à Bettenty dem ba am jabar ba euh, doomam yi commencé am jabar du génn parce que lépp lu mu war a soxla macha allah. mu ngi foofu mu ngi foofu. lépp lu mu war a soxla économiquement pour mu mun a téye lan moo waral loolu li ko waral mooy euh, euh, boo xoolee bateau de pêche yu jógee à l'étranger daanaka bu ñu ñëwee Sénégal suñu zone boobu la ñuy pêche boo xoolee aussi euh, exploitation bi abusif bi nga yi nga xam ne pêcheurs yi dañ koy def te nguur gi mu ngi ci teg bëtam andiwu ci ay solution loolu moo ko waral ndax li tax ma ne andiwuñ ci ay solution mm-hmm. Euh, bu dara amee ci benn localité boo xam ne nii bëgg nga ko solutionner rafet na nga dem ci acteurs yi waxtaan ak ñoom laaj seen xalaat ñoom ñi nga xam ne ñoo ci ñoo fa dëkk ñoo fa nekk di liggéey ñoo fa yeewoo xam ni mu meloon démb ak tey ñii séntu nag suba ëllëg seen doom yi luñ ci war a dund yaakaar naa war nga mën a dem échanger wante ak ñoom xalaat pour nga mën a aar espèce boobu mun na mu mun a am benn sécurisation boo xam ne ni dina tax euh, affaire bi am sécurité. Mhm. donc mu mel ni jafe-jafe yi foofu noonu euh, bëri na yow tey euh, lan moo waral nga déclarer sa candidature. merci euh, Sylvie loolu dinaa ci sa war a wax. Mhm. ndax ndawlaa boo xam ne ni depuis may xale. jusqu'à présent sama commune ni mu mel ba tey ma toll nii mun naa ne changement amu ci. li tax ma ne mun naa ne changement amu ci parce que biñ ne Toubacouta communauté rurale jusqu'à présent boo xoolee infrastructure routière sanitaire mhm. éducatif secteur boo dem dara développé wu ci li tax ma ne la dara développé wu ci boo xoolee l'axe Missirah mhm. Toubacouta mooy à treize kilomètres moins de treize kilomètres mhm. mënuñ ko bitumer li tax mu métti ma ne la mënuñ ko bitumer Euh, plage u Missirah rek pont Missirah bi tefesu Missirah bi lu muy dugal ci produit halieutique boo demee marché central Kaolack nga def fa benn enquête bu ndaw li mu fay dugal par jour mhm. nga ñëw xool état yu état yoon boobu bu ñu la ko expliquer doo ko gëm boo demee ci yoon boobu entre Missirah e et Némaba am na carrière bu fa nekk bu ñuy defar yoon fu ñuy tibbee xeer yu xonq yi l'axe euh, Fatick Kaolack Kaolack Karang Foundiougne Passy accès yu bëri bi ñu leen di defar foofu lañ tibbee xeer boobu suñu collectivité locale bi yore gestion carrière boobu à moins de quatorze kil à moins de treize kilomètres mënuñ ko defar te du loolu kese boo xoolee Toubacouta euh, Toubacouta ville même parce que il Toubacouta village moo polarisé cinquante deux villages et sept hameaux la commune de Toubacouta fait 52 villages 7 hameaux ci 52 villages 7 hameaux yooyu boo jëlee l'axe Toubacouta Kër Aliou Guèye. Mhm. rang-rang la nga jël l'axe Toubacouta dëmb ba Simondiène mi nga xam ne suñu forage fa la nekk Simondiène ci beneen commune la nekk. Mhm. mais forage bi ali forage yi alimenté foofu foofu lañ nekk foofu rang-rang la donc la route l'axe Kaolack Karang rek moo bitumé boo jëlee Missirah Toubacouta nga jël Missirah Taïba nga jël Missirah Karang wala nga jël. Kaaràn Mansarinko boo fa duggee tey sa yaram day daw te muy zone boo xam ne nii ça fait parti des zone des plus propulses du Sénégal moom mm-hmm. li may wax ni euh, ci rajo lay waxee Sénégal yëpp ñu ngi may dégg te autorité yaa ngi may dégg. Mm-hmm. Macky Sall mi nga xam ne mooy président de la République tey am na tool ci yoo ci ci àll boobu tey kon. am na lu mu fa gis li tax mu mu mu mu ut fa tool. Mm-hmm. ba tool boobu mu koy valoriser. muy yoo xam ne nii Euh, ci secteur infrastructure routière la boo demee ci euh, éducation tey Bettenty cette année la ñuy naan mu ngi door a am classe seconde dëkk boo xam ne nii plus de douze mille habitants imaginaire suñuy ñun bu ñu daan am en trente dañuy ñëw Sokone fa la ñuy defee suñu sixième. Sokone Sokone ñu dem dem dem ba Toubacouta am C euh, CM. Mm-hmm. suñu rakk yi daan ñëw Toubacouta dem ba. ñiy jógee ci localité yooyu dans les îles par exemple boo Bosinkan les deux Djinak nga ñëw ba Missirah ñoom ñëpp bu ñu ñëwee Toubacouta population Toubacouta borom kër yu fa nekk dañuy sonn ci ndaw yi ba yow mi nga xam ne sa mbokk sa rakk wala sa jarbaat moo fa nekk boo demee ci kër yooyu da ngay xaw a am euh, kersa. Mhm. ndax xam nañ ne zone bi euh, métti na population li ñuy dundee mooy béy commerce pêche. ak euh, comme euh, vous l'avez su si bien cité activités yu fa nekk mhm. mais yombul père de famille boo xam ne nii ci famille bi benn nit rek moo fay liggéey wala ñaari nit ñu ñu ñuy dundal seen famille nga fekk fa yeneen élèves yoo xam ne ni dinañ dinañ dinañ mun a héberger quatre ou cinq élèves yoo xam ne ni ñoom ñoo leen di dundal añ reer ak ndékki mhm. xam nga dafa métti donc boo xoolee boo demee foofu tamit nga xool état école yi nu ñu mel sa yaram day daw mhm. Toubacouta la commune de Toubacouta amul benn centre de formation professionnelle depuis la création de la communauté rural de Toubacouta jusqu'à nos jours te yaakaar naa ne potentialité économique yu fa nekk tey euh, njiitu réew mi war na xalaat zone yu mel noonu mu créer fa des centre de formation professionnelle boo demee kii ci jeunes yi abandonné bu ñu abandonné amul benn centre boo xam ne nii di nga ne lii centre de réinsertion la pour nga mun leen fa yóbbu ñu mun fa jàng métier wala leneen même chambre de métier bu baax sax amu fa boo jógee foofu nga dem euh, côté éco touristique wala touriste tourisme en tant que mhm. boo xoolee yàlla xam na ne Sénégal bu ñu valori valoriser woon zone boobu destination Sénégal kenn du ko joytu ndax euh, lépp loo xam ne nii tey nit war na mun a jógee feneen mhm. ñoo uti ko fii Sénégal di nga ko fekk dans le ñombaato comme ni nga koy fekkee en Casamance. kon tourisme bi doxatul foofu. mais fu ñu toll nii doxatul parce que benn salubrité bi des na ñaar euh, marché bi. Mhm. doxul ñett état yoon yi baaxul ñeent suñu système sanitaire doxul ndax Sokone moo am district sanitaire bu ñuy évacuer ay malade fa nga yóbbu leen à Kaolack wala Fatick ci anam yoo xam ne nii dafay metti su ma la joxee exemple Bosinkan village bu ñuy wax Bosinkan tey buñ nee jigéen bu wéré di am na problème ñu sentir que ne day sañe ñu nar ko évacuer ñu yóbbu ko ci dispensaire bi kooku ne leen évacuer lan ko Sokone la lay wax yóbbu ko Sokone boo ko yóbbu Sokone da ngay obligé dugal ko ci gaal lu mu guddi guddi lu mu naaj naaj lu mu taw taw taw da nga koy dugal ci gaal boo ko dugalee ci gaal Missirah amul ambulance boo xam ne ni mun nañ ne lii ambulance médicalisée la da ngay woote soo kon ñu envoyé la ambulance wala nga clando de bourse yu fa nekk nga dugal fa malaat bi évacuer ko ci rang-rang yooyu imagine léegi jigéen buy sañee mu nar a daw treize kilomètres ci ay conditions yu difficile bu tawee oto yi dañuy dem ba ci benn kàmb ngiroo fa il a fallu nga woo ay population ñu ñëw may la loxo des situations yoo xam ne ni boo fa demee tey sa yaram day daw mm-hmm. donc lii ak l'emploi des jeunes aussi lii bokk na ci loo xam ne ni. moo la motiver. voilà yi nga xam ne dañ ma motiver su ma la joxee la su ma waxee les jeunes tey boo demee à l'université Cheikh Anta Diop su ma jëlee l'exemple de Bédine une centaine d'étudiants ñu ngi fi di jàng ñenn ñi boo demee au village tey danga fay fekk ay master yu toog defuñu dara au moment où on est des produits à valoriser yoo xam ne ni boo fa créer des entités de transformation rek mun nga fa employer ñu bëri. mais dafa mel ni suñu njiit yu fa nekk amuñu vision yooyu donc ñun bu ñu demee ba am xalaat yooyu gis nañ ne si nous serons utiles avec nos partenaires pour les populations lan moo ñuy empêché ñu samp si suñu ndënd tey laaj mairie bu pour que ñu mën a def loolu lii mooy li nga xam ne moo ñu motiver. Mor Fall bu amee. waaw voilà donc euh, teewul naa li mu wax bu baax ci euh, li ko motiver je pense que euh, bu doon kenn aussi mais motivation yi dina la pousser nga jéem a mën a jóg ngir mën a liggéey sa sa gox mais man benn côté rek moom moom moo ma xaw a laa bëgg tuuti moom mu ñëwaat si muy ci li nga xamante ni moom mooy li mu ne kii maire yi ñoom ñoo yor gestion li nga xamante ni moom mooy moom mooy carrière bi nga ni moom la ñu tibb di ko tabaxee li nga xamante ni mooy yenn tël yeeg yu ni mel mm-hmm. mun maa concevoir ñu ne euh, dëkk bi la ñuy jëlee li nga xamante ni moom mooy carrière bi romb euh, foofu yëpp dem ba yeneen dëkk di ko fa defee lan mooy lan lan mooy le problème ndax dafa amul budget bu tax mu war a mën a defar parce que nekkul am naa carrière rek mooy moo tax nga dafa tëli wala bokk euh, dafa am loo xamante ne peut-être que dafa am genre politique bu nekk ci biir parce que dëkk yu bëri yu bëri bëri wala commune yu bëri bëri bëri seen problème mooy dañ naan. il y a des compétences transférées au niveau des communes avec l'acte 3 de la décentralisation. Mhm. Euh, telle chose moo nekk samay compétence tel chose nekk samay compétence am na yenn yoo xamante sax dañ naan dem na ba nekkul sax compétence su euh, bi mais mun na ko def ci li nga xamante ni moom mooy bu amee ay partenaires yu ni mel. donc yéen euh, foofu nga xamante ni mooy seen dëkk boobu lan mooy problème bi ndax dafa amul budget bu mën a tax mu defar yooyu parce que d'habitude genre genre communes yooyu am budget yu xaw a bëri yi même fekkee wax nga potentiel bu bëri bëri bi nga xamante ne am na ko avec seen. Euh, euh, activités yi ngeen def jëmale ko ci pêche bi euh, ci li nga xam mooy artisanat ak yu ni mel ak yooyu mais boo mënee jox fekkee am am nga ko chiffre yi nga mooy budget bi ndax mate na ngir mën tabax yooyu école yi ngeen di wax tabax li nga xamante ni moom mooy infrastructure sanitaire yi ngeen di wax ak yeneen ak yeneen boo si mënee ñëwaat tuuti. monsieur Fall merci. Hmm. loolu dinaa ci kontaan na tontu. Hmm. ndax du ma wax ca sax ci budget. Hmm. ndax ñëpp xam nañ ne bu la askan bi wóoloo jox la seen baat. benn yoon ñaar yoon ñetti yoon. Hmm. ak condition favorable yi nga am. ñëpp xam nañ ne maire bu nekk au moins di nga am benn passeport de service boo xam ne ni dina la permettre nga génn dem ut ay partenaires pour que nga mun leen andi mun a liggéey sa sa dëkk. Hmm. am na potentialité touristique yu ma la wax économique. Hmm. boo xoolee ressources yi nga xam ne ñooy dugg dans la commune wala société yi nga xam ne sax ñoom la ñuy jox chantier. defar yoon yooyu ma la limal société yooyu si j'étais à la place du maire dinaa leen ne ah da ngeen soxla lii man tamit ma soxla lii affaire yi waxtaan la rek waxtaan la diisoo ba trouver un consensus d'accord ndax gis nañu yenn localité yoo xam ne ni tey maire yi macha allah maire yi macha allah ñoom ñooy jóg dem uti des partenaires pour ñu liggéey seen i commune mais boo fi nekkee. li nga xam ne mooy ressource yi nga xam ne ñooy dugg ci commune xaalis bi rek moo la ci intéressé munoo am yenn vision yi pour liggéey ko c' est très facile. Hmm. c' est très très facile pour man. Hmm. parce que tey société boobu tey bu ñëwee ne la lii laa soxla dafa am lu mu soxla bu mu soxla ci yow nga ne ko mais on va faire cette cette partenariat gagnant-gagnant. Hmm. j' ai des routes à bitumer. mais partenariat gagnant-gagnant boobu. Euh, effectivement xaalis moo koy def parce que xaalis moo koy def main d' oeuvre. mais est-ce que xam nga ne am na année boo xam ne nii waa waa waa Néema Ba manifesté woon nañ baare yoon boobu ne benn camion dootul jaar tibb gendarmerie moo dem négocier pour que ni ñuy jàll mais le responsable qui était là-bas daf leen wax carrément que ne ñun lépp lu ñuy def dañuy dañuy signer le contrat avec avec avec la mairie te kenn waxuñu que ne defar yoon bi fii nii nangam nangam population yi manifester loolu barki démb gii rek populaire li ko jëlee euh, nu mu tuddati euh, à Bani ba misira dëkk yi mooy bani suuru daa silaame séeréer neema ba misira les habitants de Betenti Jinak Bosinkan chaque dimanche ci nawet bi dañuy dem tibb ay xeer pour fàtt kamb yooyu pour oto yi bañ a ngiru pour faciliter dem ak dikk bi waa Betenti yi dañoo jël seen gaal chargé ay ay xoru paañ jëlee ko ci île bi indi ko sotti ko ci yoon bi pour faciliter dem ak dikk bi dimanche bi passé gars yi dañ fa dem baare na benn oto du jàll à ma grande surprise benn jour lañ toog matul deux semaines le maire ñëw ak un entrepreneur ne day defar yoon bi il fa que ñu xaar ba politique jot pour ànd ñu entrepreneur pour euh, wax ñu ne dañuy defar yoon bi hmm. et ça veut dire quoi ça veut dire que volonté politique bi moo fi nekkul. Hmm. kon seen maire liggéeyul. voilà voilà mais mais liggéey bi liggéey bi aussi liggéey day day am budget yooyu est-ce que aussi est-ce que am nga chiffres yi ci ci seen mairie boobu euh, budget bi la toll fu ma toll nii j'ai mhm, mhm. prononcé wu ci loo xam ne ni mhm. aw ma ko exactement mais mais mais am na budget bu consistant bu war tax mën a mën a liggéey effectivement laa lay wax c'est-à-dire ñoom am nañ ko parce que le le le maire en tant que tel il est député maire pour ma fàttali la ko on a un député maire un maire boo xam ne ni période euh, temps wu Ablaye jox nañ ko benn mandat. Mm. Macky Sall bu mu toogee daf ko fa fekk mu accompagner ko ba léegi. Mm. mun nañ wax ne def na fa dix huit ans. Mm. dix huit ans. nga yore benn collectivité locale. di fa liggéey au minimum treize kilomètres nga ne mënoo am budget bi koy liggéey. wala mënoo am partenaire yoo xam ne mun la si jàppale nga liggéey ko. loolu koo ko wax waru ko mën a gëm. ci réew mi ñu nekk. surtout ci dëkk boo xam ne ni tey sa commune bokk na ci communes yi nga xam ne économiquement avenir baa ngi fi. Sangomar offshore bu ñuy wax c'est à quelques kilomètres de Bettenty à quelques kilomètres de Bettenty mm-hmm. mais même programme yooyu population bi gisu ci seen bopp parce que ñun xamuñu nu muy demee mm. pour te dire que man Mamadou Sène xaw ma nu muy demee mm. te quatre vingt pour cent des des populations nga wàcc mu sa enquête dinañ la wax ne xamuñu nu ñuy demee bu amee ay de wala leneen dañuy xool ñi nga xam ne ils ne savent même pas ñu yóbbu leen ci ay réunion yoo xam ne nii c'est technique mm-hmm. mais naka la ñuy mën a avancer bul nekk politicien xool ne samay partisan rek non yóbbul ñi nga xam ne xëy na bu ñu demee dinañ amal askan bi njëriñ mm-hmm. ñi nga xam ne tey yow dara manqué wu la boo demee dëkk ba am nga fa ay docteur façon diplôme boo soxla am nga ko dans la commune de Toubacouta mais tey bokk na ci commune yu gën a arriéré dans ce pays or da ngay gis ñu dëkk Dakar ne la yow looy ut dakaar man ñu bëri kilifa yu bëri dañ ma koy wax may nuyu sama benn kilifa muy président Mifta Pape Mor Ndiaye le professeur Pape Mor Ndiaye dafa ne ma seen looy def Dakar ak li am Toubacouta ma ne ko li am Toubacouta ñun mënuñu valoriser te ay ndaw lañ mënuñu bàyyi suñuy famille ñuy sonn kon dafay situation yoo xam ne nii vraiment euh, poussé nañu ba ñu jugé utile que ne il fallait que ñun tamit ñu jóg samp suñuy ndend ànd ak ñii nga xam ne intérêt dëkk bi intérêt commune bi moo leen tax a jóg pour mun a euh, amal njëriñu réew mi. Mhm. yow euh, sa candidature ci grand parti la wala. sama candidature candidature indépendant la. candidature indépendant la. déposé nga caution bi lépp euh, voilà la caution aussi am na récépissé ba pare. te incha allah maa ngi ciy waxtaan ak yeneen partisans. Mhm. incha allah di fi gis coalition de jeune boo xam ne nii. macha mhm. allah. au lendemain des élections mhm. incha allah euh, ñëpp dinañ ci gis seen bopp. waaye yaakaar naa du yomb de parce que yaakaar naa laaj nañ treize mille signatures pour ñi nga xamante ne ay candidature euh, indépendant lañ ndax loolu aussi. moo tax parce que treize mille c'est pas facile de. moo tax balaa dépôt candidature bi. Mhm. ma ne la euh, tey am nañ récépissé bu disponible aussi. Mhm. du lépp la ñuy wax. Mm-hmm. parce que am nañ plan A am nañ plan B. Mm-hmm. buñ ñu laalee fii nar ñoo koñ fii ñu ñu an ñu génn fale <laughs> on s'est préparé. mais mbaa di nga ko on s'est bien préparé moom. mbaa di nga ko matal treize mille. on s'est bien préparé loolu bu oh, am nañ am nañ plan fale. <laughs> Uh-huh. waaw ñoom nañ préparé rek ñu ngi ñëw. Uh-huh. am nañ plan B am nañ plan A am nañ plan B macha allah. Uh-huh. te plan C sax prévoir nañ ko. plan C bi nga nee naa la di nga gis coalition de jeunes boo xam ne nii fu mu taxaw. Mm-hmm. ku mu jàkkaarlool nga patiner. loolu moom macha allah. <laughs> placé bi xanaa ci kii fay dem parce que yéen est ce que mën ngeen traiter treize mille euh, habitants. Euh, su ma su ma wu élection locale yi passé euh, nombre de votants bi c' au aux environs de euh, douze mille à treize mille douze mille et quelques. kon instant yi war ko dépassé. douze mille et quelques votants. mais mm. yi war na ko dépassé. Mm. instant yi war na ko dépassé. Mm. mais je sais aussi que ne. boo naree ne la commune de Toubacouta pour un candidat indépendant am fa treize mille habitants. Mm population bi yëpp duñ ko signal. Mm-hmm. moo tax ñu am suñu plan B ak suñu plan C. Mm-hmm. kon baax na ko <laughs> <laughs> waaw di fàttali rek euh, mbokku déglukat yi nga xam ne dañu dab euh, seen émission sans filtre ngeen di déglu ñu dalal fii Mamadou Sène euh, mareyeur la de profession président ASC Terema Bettenty président commission des relations extérieures partenariat. association pour le développement de yi mu samp ndëndëm pour élection locale yi foofulee ca commune bu Toubacouta du seen bu ma la déggee daa mel ni euh, yéen seen commune bi dara doxu fa euh, te bu dara doxul ndaw ñi je pense que dañuy immigré. effectivement ndaw ñi ñu ngi dem wala. mooy phénomène bi nga xam ne tey euh, daf ñu jaaxal ñun man mi nga gis ni mos na émigré. waaw ah. du ma la ko nëbbu Sylvie ci plateau laa nekk. lu tax nga ñëwaat. voilà dañ ma rapatrier à à deux reprises. foo jaar xanaa ci gaal bi. Euh, ci gaal gi jaar naa fi ci gaal gi 2007 dugg Fuerteventura def fa 45 jours ñu rapatrié ma ma ñëw def 3 mois defaruwaat dugaat gaal 2008 sama doom bi ñuy naan Ibrahima bu muy juddu maa ngi woon foofu. ñu delloowaat. Ibrahima boobu c'est mon meilleur ami mais biñ may rapatrié. boobu tamit mooy loolu. donc immigration clandestine dafa nekk loo xam ne ni tey su ma la joxee Bettenty macha allah Bettenty mu ngi développé parce que boo fa demee ak construction yi li fa moodu moodu yi def ma leen di saluer de passage ay jàmbaar lañ mais ci seen biir il y a des masters yu nekk seen biir fii lañ nekk université di xeex di xeex di xeex ba mënatuñu dem teg seen lijaasa yu ñu fa am. ñiy jël vol dem Maroc dugg gaal yi dem ñiy jël oto dem Mauritanie dugg gaal dem xam nga li ko waral. Hmm. activité am na fa mais activité yooyu ñoo dem ba dee su ma la jox l' exemple euh, di di euh, ci benn produit halieutique bu ñuy wax crevette crevette macha allah mu ngi am Bettenty macha allah mais dafa amul marché tey suñu mareyeur yu bëri ñuy liggéey ci crevette bi bu ñu jëlee crevette dañ koy yóbbu obligé yóbbu Gambie wala ñi ñenn ñi transformé ko indi ko marché castor gi boo demee marché castor tey ñu ngi fa fekk ci ay doomu bétante ñuy jaay ay crevettes yu wow paañ yoxos tout tout en pagaille yooyu lañuy def dundal ci seeni njaboot kon tey euh, phénomène la yoo xam ne ni man gis naa ne bu ñu créer des entités de de de transformation mm. au niveau local jeunes yu bëri dinañ toog ndax dara gënu ko neex tey nga xëy di bonjour à ton papa bonjour à ta nga xëy dem liggéey liggéeyi wàcc 16 heures ñoom fekk lañ ci kër gi lu ñuy xaar ci yow nga àndaale ko jox leen ko ñu ñaanal la dara gënu gënu ko neex mais suñu mbokk yooyu tey ñu ngi ci sedd bi ñenn ñi pour ñu mën a déggante ak seen jabar sax problème la. bien vrai que léegi am nañ euh, réseau 4 bu bu baax foofu mais bu njëkk problème la pour nga mën a jot sa jabar téléphone sax problème la sinon même antenne yooyu fa nekk sax. bu nawet amee mu am yenn yenn yenn aléa climatique yi bu réseau bi amee problème ñoom dañuy am jafe-jafe ci dëkk bu mel ni Bettenty mu am douze mille habitants par exemple tey boo bëggee retirer xaalis da ngay dem ci yenn multi services yi ñoom ñoo lay defal ay transfert mais ça te prend presque combien de boo jëlee euh, suñuy papier yi nga xam ne par maanaam suma jëlee exemple ci extrait extrait moyen de trois mois ñëpp xam nañ ne Sénégal c'est à trois cent francs mais un fils de Bettenty ou un fils de Bosinkam bu ko amee dina dépenser plus de cinq mille francs ci naka su ma la ko waxee dina la jaaxal. Mhm. da ngay dugg gaal nga dem misira tu paies mille bu dee ci nawet la borom oto yi tamit dem ak dikk bi comme ndox kese la yoon bi. ndox la ñu yokk mhm. tarif bi oto bi mille francs la deux mille francs donc aller retour ça te fait nga nar a ndékki nar a añ. boo demee signature pour nga mun ko am le maire soit mu ngi fi am na ku ko fa nekkal kooku enseignant la bu école ubbee mu dem école il faut mu wàcc 13 heures pour mu ñëw signal nit ñi ay documents da ngay gis ñu soxla extrait rek fanaan fa dépenser plus de 5000 francs pour benn extrait amuñu sax vision pour créer des centres secondaires d'état civil dans les îles loolu lu mu kenn yombee mënuñu ko def léegi xam nga avec ces ces ces genres de pratiques là il faut ndaw yu yeewu jóg mun a xeex jot li nga xam ne mooy pouvoir gi maanaam la gestion des collectivités locale pour mun a sukkali gox boobu hmm. vraiment yow tey bu la yàlla mayoon nga jël mairie bi lan ngay def pour sa commune merci de un dafa am loo xam ne ni euh, dafay nekk sama xol mooy côté santé tey ma je juge que le village de Toubacouta village war na am district sanitaire kon ñu def fa au moins benn hôpital boo xam ne ni même bu amul norme yu yëpp mais mu xaw a tane Kaaran am district sanitaire tey su ma demee Toubacouta côté santé maa ngi xalaat xeex pour ñu am fa district sanitaire l'état de ces routes la jéem leen améliorer même si ça ne ça ne serait pas à cent pour cent mais au moins nga mën a satisfaire nit ñi seen déplacement yi gën a yomb ndax koom-koom mun ta dem te dem ak dikk bi yombul mm-hmm. koom-koomu gox mun a dem te dem ak dikk bi yombul boo jógee xew fu nga dem côté éco euh, côté côté touristique et éco bu ma jëlee euh, la ville le village de Toubacouta mairie bi fu mu nekk tali bu ñuul bi dafa romb ci ci ci buntu mairie bi li ko jëlee buntu mairie boobu am na benn mbedd central bu dem ba wàcc ci hôtel yi ci géej gi mais à moins de deux kilomètres pour xeex pavé ko ut ay ay partenariat yoo xam ne nii sur le plan touristique proposé leen Toubacouta ville touristique andi benn programme boo xam ne nii dana xeex euh, côté salubrité mais en même temps di nga am ay système de canalisation yoo xam ne nii ndoxu taw bu wàcc dina mën a wàcc géej ndax dëkk la boo xam ne dafa sës ak géej Toubacouta exemple ci Toubacouta laa koy jëlee foofu boo ko defee ay pavé nga jël beneen route bi nga xam ne am na benn rang bu jógee ci hôtel yi dem ci beneen sens bi dem rejoindre côté Sokone bi booy dem Sokone mhm. dem rejoindre tali bu ñuul bi foofu mhm. rang boobu tamit boo ko munta pavé au moins c'est moins c'est bu soree ba soree matul sax un kilomètre rang boobu nga def ko euh, nga bitumer ko léegi nag dëkk bi yëpp nga andi ay système d'évacuation des eaux usées ak euh, ay système d'évacuation des des des des ordures vraiment dafay programme yoo xam ne ni dafay sukkali tourisme bi foofu ndax période bii ñu nekk période nawet boo wàccee Toubacouta bu tawee da ragal a génn ndax suuf si dafa glissant booy dox mun nga sol sa sance bu rafet nga dox nga glissé daanu sa yaram yëpp tàkk Jakarta pour nga yëg ko problème la boo jógee foofu nga dem ci côté pêche yaakaar naa euh, autorité yu fi nekk ñu ngi may déglu bu baax parce que le ministre de l'économie maritime ñëw na Bettenty jour boobu man lañ jox temps de parole pour les jeunes à Bettenty boo demee Bettenty tey nga xool booru géej nga xool situation yu fa nekk ak programme yi nga xam ne indi nañ leen fa dañuy indi benn projet teg projet boobu du am suite su ma la joxee l' exemple de benn projet bu fa nekk ñu koy wax PISA PISA dañ ko andi pour la transformation des produits locaux pour que jigéen ñi mun a yëngatu côté boobu mais tey boo fa demee ñu wax la li fa dugg ak état foofu nu mu mel bu ministre bi ñëwee ñu dem taxaw bi ma defee le discours ñi nga xam ne ñoo yoree gestion bi foofu au niveau de Bettenty dañoo sëgg ñenn ñi sax dañ jël seen téléphone di ñu menacer di naan waruñu wax loolu devant le ministre maintenant ñun fan lañ jëm. ku yàq te bëggoo ñu wax ko. Mm. ku ñu dënk te li ngay gérer doxul bëggoo ñu wax ko fu ñu jëm. moo tax ma jël engagement personnel man Mamadou Sène tant que maa ngi fi ku def naka su dul noonu je vais dénoncer fu la neex nag demal ragaluma ci dara incha allah bien vrai que suñu kilifa yaa ngi fii nag di ñu conseiller pour ñu mun a préserver li nga xam ne ñëpp a ko bokk mu bañ a yàqu. Mm-hmm. te ñun milieu social dañoo am ay valeurs yoo xam ne nii war nañ ko préser Euh, wax nga ko euh, Bettenty euh, transport bi demeewul noonu dem beeg dikk bi enclavement bi île bi gis nañ ko jotul tey ñu def ko commune. effectivement li may question bi may xaar merci euh, président dafa ñëwoon bi jéewee bi amee foofu le drame des vingt et un femmes. Mm-hmm. may saluer seen mémoire di leen ñaanal fu ñu nekk yal na la gënal fii. di ñaanal seen doom yu ñu fi bàyyi yàlla may leen gudd fan. Hmm. gudd fan yi nga xam ne seen waajur yi amuñu ko yàlla may leen ko. président bi mu fa ñëwee dafa wax devant les journalistes devant l'opinion publique devant les populations que ne incha allah bu fekkente ne monsieur le maire ak technicien yu fi nekk jox nañ ko feu vert dina def bétanti commune. 2017 la depuis 2017. depuis 2017 ba léegi saa yu ñu jàkkaarloog monsieur le maire def def ñuy naan yéen toog leen ngeen xaar seen commune dossier bi mu ngi ci présidence pare na ba pare. signature rek signature rek moo ci des. Mm-hmm. ñu dem dem dem à chaque fois bu ñëwee bétanti discours boobu da koy tenir à chaque fois ñu def délégation à travers des associations ak leneen ak leneen daf ko fay wax ñu toog dem ba ñun ndaw yi ñu toog ne. attention cette communalisation bi nga xam ne président président diggoon nañu ko fu mu jëm vraiment du ñu doy il faut ñu jóg ñu organiser fa benn point de presse point de presse boobu bu ñu ko organiser ñëpp xam nañ ne point de presse laajul sax ñu dem uti autorisation mais ak suñu disipline ñu dem sous préfecture ut fa benn autorisation dem à la gendarmerie kii ko su préfet ne autorisé wu ko man Mamadou seen maa fa dem. point de presse bi autorisé wu. autorisé wu ko alors bi mu waxee loolu bi ñu demee ba bétanti ñu toog ne soit dañuy dox ci suñuy kaw mais point de presse bi day am ñu tenir point de presse boobu euh, bétanti tenir bosam à bétanti waa ñoo joor tamit tenir seen bos à ñoo joor waa ñoo joor bi ñu ko initié. ñun dañoo dugg ci gaal dem fekki leen ñoom it bi ñu ko initié Betende bi mu ko initié am na ndaw yu ñuy yónni pour ñëw assister ñu. communalisation boobu ñu ngi koy jooy ba léegi te ñu ngi sàkku ngiitu réew mi bu dee mu ngi ñuy déglu wala keneen di ñu déglu ki ko jege vraiment Betente mu ngi laaj commune am Betente mu ngi laaj commune am ma bamtuwaat ko Betente ak les îles yu mu àndal ñu ngi laaj seen commune. Bettenty soxla na ko mais commune de Toubacouta ci boppam moo ko soxla xam nga yaa ngi wax problème de budget mm-hmm. boo xoolee la commune de Toubacouta c'est cinquante deux villages et sept hameaux imagine tey boo jëlee les îles nga berlan xëy na charge yi wàññeeku ci maire bi nekk ci terre ferme bi mm-hmm. mais président daf ñu ko dig 2017 ba tey gis nañ keroog dagg nañ fi Keur Massar et pourtant gis nañ que ne li ko motiver xëy na politique la mais ñooñu gën ñu ko soxla waa Bettenty ñoo leen gën a soxla su ma ne Bettenty du Bettenty kese Bettenty fait plus de douze mille habitants mm. y compris Bosinka les deux ji nag donc situation boobu jarul sax nit di ko wax nit ku dem Bettenty da ngay yow yaay témoignal sa bopp ne wax dëgg yàlla dëkk bi jot na mu am commune boppam kon ñu ngi laaj euh, autorité réew mi ñu dimbale ñu rek ak niñ ko mën a amee ñu jox ñu suñu commune dafay suñuy droit te dañ koy laaj te yi nga xam ne ñoo dëkk dans la commune de Toubacouta te dëkkuñu sax Bettenty de gens de bonne fois ñu ngi ñuy ñu ngi ànd ak ñun pour xeex boobu te incha allah fii ba ñu koy am dinañ ko xeex. Mhm. incha allah mais ñi nga xam ne jotoon na ñàkk seen bakkan ci chavirement pirogue boobu état bi dafa am na ay engagement yu mu jëloon est mu ngi koy respecté. effectivement am na engagement yu ñu jëlan sur euh, xale yi nga xam ne dañ leen di tuddee les pupilles de la nation gis nañ ne chaque trois mois seen parent yi danañ gën a dem jël pupilles yooyu aussi chaque vacances dinañ leen jëlee au village yóbbu leen fenn ñu dem vacances yi fa yaakaar naa mus nañ ñëw Dakar mus nañ dem cees vraiment côté boobu moom témoignage boobu dinaa ko def mm-hmm. euh, même bu fekkente ne luñ leen digg yëpp amul mm-hmm. loolu moom wax dëgg yàlla. ñu ngi jéem daal ñu ngi jéem lu ñu mun. Mm-hmm. loolu moom vraiment dinaa ko témoigner tey. neuf minutes moo ci des moo fa amoo laaj. donc man damay damay rejoindre li mu wax rek parce que je pense que euh, dëkk bi ak euh, potentiel yi mu am ak yi nga xamante ne wax na fi ko comme ambition ak comme projet ko mën def. je pense que a dox ay jéego ba euh, communalisation mu wax ñu def ko parce que buñ demee ba li nga xamante ni peut-être moom mooy ma joxe exemple li nga xamante ni mooy Thiaroye Gare am lu toll ci neuf quartiers nekk commune jamono ji donc ñoom ñi nga xamante ne ñoo bëgg je pense que. war nañoo mën a am li nga xamante ne moom mooy communalisation boobu ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu potentiel yi nga ko euh, ci wàllu euh, euh, produit halieutique yi ñu am ak moom mooy pêche bi ak yu ni mel je pense que loolu état bi sax moom moo ci war a mën a dox ngir mën a jëmmal activité yooyu parce que dafa mm-hmm. nekk produit yoo xamante produit yoo yooyu lu ci mel li nga xamante moom mooy crevette bi li nga xam ne moom moom mooy yoxos bi dañoo jàpp yàq sénégalais mooy lekk yooyu mais produit yooyu chinois yi dañ koy lekk japonais yi dañ koy lekk ak ñeneen ñeneen asiatique yi dañoo bëgg genre produit yooyu donc état bu dee ba gis dëkk boo xamante ni ñooñu am na ci potentiel bu bëree bëri boo xamante ni day mujj di yàqu donc da may gis ne ñàkk ambition la wala bokk mu nekk loo xamante ni kon ni ñu koy waxee saa su nekk rek euh, boo boo bokkul ak nit ki li nga xamante ni mooy vision politique da koy jéem a dëgg tuuti man loolu loolaa fa li gis ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, état bi te a chaque fois mu naan jeunes yi nañuy entreprendre te boo gisee jeune boo xamante ni il est là il veut entreprendre euh, il veut li nga xamante ni mooy gérer la localité bi nga xamante ni mu fa dëkk muy ji ba mu mën dem ci kanam ba état bi loolu la war a mën a mën a jëmmal mais du ay politique politique dafa dafa dafa dafa am moment boo xamante ne ko def même fekkee euh, politicien bu nekk sa bopp nga nga nga war a mën a jë wala boog say ñooñ nga war a jàppale mm-hmm. mais dem dem ba côté boo xamante ni da teg ci côté bi yëfu ñooñ mais xool li nga xamante ni moom mooy développement dëkk bi parce que mm-hmm. euh, li ñu naan way euh, nit ki da nga war a da war a xool sa sa sa sa way après parce que Macky Sall bu demee ba jóge fi dañ naan Macky Sall moo moo defoon lii ak lii ak lii mu nekk ci ci lu baax donc euh, li nga xamante ni moom maa moom laay moom laa waxee conseil rek mooy euh, wala boog li li ma kii mooy na continuer ci conviction bi nga xamante ne la nekk muy ne lu mënti am muy plan A muy plan B muy ba si plan Z ba si plan Z sax mm-hmm. ne candidature am dina ko maintenir donc ñu koy ñu koy jaajëfal mais man benn question rek laa laa bëgg a laaj lan moo tax euh, bëggoo dem ci li nga xamante ni moom mooy ci les couleurs du grand parti nga bëgg dem ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy candidature indépendante ndax comme ni ma koy ni ma koy waxee saa su nekk rek bu fi waa grand parti ñëwee may leen man ñi ma gis ñu ñu nekk ci grand parti ñëpp d'habitude ay ay ay yambar la ñuy nekk da dañuy dañoo mel ne comme seen seen seen euh, guide seen seen chef bi daanaka bu xawee kii tuuti mu xaw a daw arrière tuuti waaw ndax ndax euh, euh, parti bi moom moom moom moo taxaw taxawaay bi mën tax nga mën dem ci couleur yooyu wala boog dafa am leen lu tax nga ne man candidature indépendante nga demee effectivement merci foofu Euh, juste rek may nuyu Malick Gakou de passage. Mhm. may nuyu le doyen ñas ndax ñoom moom moo ñu formé. Mhm. man ak Mali yëpp moo ñu formé. Mhm. maa ngi commencé politique à l'époque j'étais élève. à Kaolack par le canal de Serigne Mamour ñas setam laa doon àndal ba mu présenté ma paa bi Moustapha créé parti bi mun nañu dafa bëgg a créer benn mouvement élèves étudiants au niveau de Kaolack donc si laa duggee ci politique mais ma xamal la ne Malick euh, dafay nit koo xam ne nii. bëggul dugg ci loo xam ne ni dina ànd ñàkk yaradi wala ñàkk teggin li ngeen di naan dafay arrière wala yambar la wallaay du yambar xam naa ko bu baax muy leader boo xam ne dama koy côtoyer nekkul ne dama koy géey fii di ko jaayi Sénégalais yi en tant que leader ku ma xam xam ne su ma jëlee engagement jël naa ko mm. li tax nag euh, dew ma ci couleuru grand parti grand parti dafa bokk ci benn coalition coalition boobu localité boo dem du ma la ko nëbb bëri na ay coow Pastef fii les gens de Khalifa fale yeneen couleur yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom. Mhm. comme par parloo boobu mu ngi dem quatre-vingt-dix pour cent de ces leaders man woo naa leen ne leen attention bu ñu demee dans le besogne wala candidat yi candidat yi candidature yi dans la commune ëpp six danañ jox l'actuel maire faveur te ñun ñëpp suñu xeex dafa war a nekk lan mooy lan. ñu booloo jële fii li nga xam ne moo moo moo arrangé wul askan bi andi fii loo xam ne nii askan bi dina fi gisal boppam si kaw loolu ñu gis que ne il y a des gens yoo xam ne nii dañuy mbubbawoo coalition bi pour indi problème je vais le dire. Mm. ci plateau laa nekk. Mm. man ma gis loolu ma sax euh, prononcé wu sama candidature dans la candidature de cette coalition. je vu que ne ñu nekk sama gannaaw pourquoi pas ma jóg su ma jógee. il y a des jeunes yoo xam ne ni tey ay candidats lañ ma leen di de passage ñu mel ni euh, Maïkor Diouf ñu ngi discuter ñu ngi discuter pourquoi pas créer loo xam ne nii pour jëlee fi ñi nga xam ne ñoo fi nekk te incha allah comme ni ma leen ko promettre di ngeen gis coalition de jeune boo xam ne nii. foofu tey dans la commune de Toubacouta. su may wax parce que Bettenty n'est pas encore commune. Mm-hmm, mm-hmm. mais commune bi yëpp laa wax. Mm-hmm. commune bi yëpp laa wax te may lancer appel ñeneen ñi nga xam ne. Euh, yeneen communes yi nga xam ne ñoo ñu wër ñu mel ni Sokone tey la maire Petit ma koy saluer de passage mais ndaw yi mu ngi liggéey liggéey bu am solo ndaw yi nañu bootu ci gannaaw. Hmm. mais même Karan il y a un jeune qui est là-bas en l'occurrence docteur Abdourahmane Diallo il se bat pour pour pour pour, pour sa localité donc ndaw yu mel noonu lañu soxla ci ay gox. pour mën a développer loo gox yooyu. Hmm. ndax dañoo nekk ci zone boo xam ne nii nee naa la li fay yàq ci ay màngo warul yàqu. il suffit que nga créer fa benn entité de transformation des produits locaux entité de transformation yooyu jël produit yooyu valoriser leen def leen en sirop exporter ko c'est possible te di nga ca mën a di nga fa mën a solutionner l'emploi des jeunes nga mën a solutionner euh, ñi nga xam ne ñoo yore seeni tool bëgg a valoriser seen produit te xamuñu fu ñu koy valoriser mais bu mango ñoree wala beneen produit ñoree boo fa duggee li nag yi xar yi di lekk sa yaram day daw. Hmm. vraiment Alioune Ba mën nañu jàpp ne daal bis boo nekkee maire sa première projet est-ce que mën nañu moom mooy nekk dox ba li nga xamante ni moom mooy euh, communalisation euh, Bettenting nekk nekk li nga xamante ni moom mooy réalité. bokk na si ay premier projet mais du ma ne la moom kese lay doon ndax. Euh, askanu bu ñu ma falee du Bettenting kese ñoo may fal. dëgg la donc waruma waruma soxla Bettenting am commune. Mm. ba ma fàtte commune bi nga xam ne moom ma fal. Mm. commune boobu lay taxaw en même temps mu ànd ak la communalisation di dossier nga joxe sa mot de la fin tàggatoo trois minutes moo ci des. mot de la fin mooy euh, may lancer appel jeunes yi nekk euh, dans la commune de Toubacouta may euh, nuyu suñ jigéen ñi bu baax may nuyu sam papa Kawsu Sène de passage ci lamure l'ami de l'actuel maire. Mm-hmm. may nuyu sam yu fa nekk yëpp. di nuyu sama yaay depuis la Gambie di nuyu la diaspora de la commune de Toubacouta di saluer seen engagement. di leen invité aussi média yu nekk fii Sénégal boo leen bëggee xam li nekk ci réew mi ngeen wàcc xool parce que les associations ont tout fait dans leur localité tey érosion maritime pour xeex ko boo wàccee Bettenty te di fa jël exemple yu bëri. ndax euh, temps bi moo ñu xaw a tënk. Mhm. mais bëgg nañu wax ci lii nga xam ne réalisation yi nga xam ne association boobu ñuy naan adep lu mu fi def. bëgg naa ci waxtaan aussi mais xam naa ne temps bi tënk nañu. te vraiment euh, ma mun a yemale fi pour bañ a dugg ci seen temps bi jërëjëf. waaw waaw dañuy jaajëfal suñu suñu suñu invité di ko encourager aussi parce que jeunes yu mel nii lañ soxla. donc di leen jaajëfal yéen ma bokk plateau ak ñi nga euh, moom mooy 97 euh, point 5 donc yow aussi di la jaajëfal si yow ma bokk plateau saa su nekk. di leen jox di daje. merci bi di ñëw Amadou Sène euh, candidat la foofu la ca commune bu Toubacouta ñu koy souhaiter bonne chance ndax euh, projet yi mu taxawal projet yu am solo la euh, te nar jàppale ndaw ñi di gërëm mbokk auditeurs yi ak internautes yi nga xam ne ñu ngi doon suivre ci suñu chaîne YouTube di gërëm bu baax Adama Diallo mu fetoon ci cabine technique bi di gërëm également képp ku ñu doon bàyyi xel.